naqarlu bu baax a baax euh, jàpp yi nga xam ni ñi ngi koy jàpp suñu leader président Bougane Gueye Dany euh, bii mooy ñaareel bi yoon te jàpp gu njëkk gi boo xoolee bàyyi gin ko bàyyi mooy firndeel gi aussi teguñu ko fenn ndax li ñuy wax ni moom lañ koy jàppee damay jàpp ni ñoom dañoo nekk ci régime boo xam ni dañoo commencé di tâtonner ndax li waroon nekk seen farta mooy li nga xam ni digoon nañ ko Sénégalais yi ñu taxaw ci mais malheureusement à la place comme amuñu lu ñuy teg ci loxo sénégalais yi ñuy utiliser jaay doole donc jaay doole googu moom moo tax ñu fekk Bougane Gueye Dany mu ànd ak ay naataangoom yi nga xam ñoom ñoo composé la coalition sàmm sa kàddu di indil teraanga ñi nga xam ni dañu nekk ci ay jafe-jafe yu tar ginnaaw bi nga xam ni fleuve Sénégal bi débordé na dugg ci kër yi ñaata dëkk yoo xam ni aujourd'hui ñi ngi ci biir ndox mi ñaata des centaines d'hectares yoo xam ne ay toolu ceeb la ak yeneen mbay yoo xam ne tey jii Euh, yàqu na ndax ndox mi kon jàpp naa ni li war a nekk it dëgg-dëgg ci régime bi mooy mu teg ay ay stratégie wala ay jéego yu concrete yoo xam dina mën a soulager population bu ñu dégloo président de la république démb fi ko doon xaar malheureusement ñëw fa parce que dañ doon xaar mu ñëw ni ñi nga xam ni kat euh, ndox mi nangu na seen kër yi defal nañ leen lii ak lii ak lii mooy lu ñu mën a teg bët mais malheureusement euh, daf ko survolé dem ci yeneen yoo xam daanaka loolu nekkul fàtte ci Sénégal yi moo tax ñun waa gëm sa bopp tey ñu daje fii euh, ci département Tivaouane di wax ni président Bougane Gueye dani jàpp ngeen ko jàpp tegul ci yoon fan ko yóbbu ca Tamba aussi condition ya nga xam ni moom lañ ko teg moom mérituwul loolu ndax moom fenul sàccul demul fu mu koy tere te bokk na ci ñi gën a contribuer ci PIB bu réew mi à travers les taxes ak impôts yi nga xam da koy fay nekk nit koo xam ne également sa dimension sociale c'est démesuré lépp lu ñu xamal président Bougane Gueye Dany mooy dimbali jaam yi fépp foo xam ni euh, jafe-jafe am na ci réew mi dafay déplacé wu dem ànd ak ñoom coono ba te loolu ba mu ko tàmbalee du woon dafa nekk ci di def politique wala dafa bëgg am réew. je me rappelle en 1980 2014 euh, il avait mobilisé à travers sa fondation Sen Action 500 millions di dimbali ay jaam dimbali ba dimbali jaam yoo xam duñu ay sénégalais yaakaar naa euh, Rohingyas yi au niveau de la Birmanie ba léegi mi ngi ñu ngi koy fàttaliku. kon kooku gàcce ci régime bi muy continuer di def loolu ànd ko ak ñi nga xam ne ñoom la bokkal langue gi parce que nag contexte bi oblige mooy dañuy waajal élection législative donc mu ànd ak ñoom di dem dimbali ñi nga xam ni ñi ngi sonn lool je crois que kon gàcce la ci régime bi nga xam moom moo fi nekk. donc kon gëm sa bopp département Tivaouane les jàmbaar dajaloo nañu ànd ak coalition bi ak intercoalition bi euh, fas yéene wàcc ci terrain bi ci kanam dana leen jox les stratégies pour que bi xam ni Bougane place am prison. te lépp loo xam ngi le régime de Diomaye Sonko pare nañ ko pour xoxotal ñi nga xam ni ñoom ñooy dérouler opposition ñoom pare nañu pour xeex pour ñu xam ni donc loolu mënul am Sénégal Sénégal réewu démocratie la c'est par la démocratie que ñoom ci lañu accéder au pouvoir comme ñoom dañu war sàmm li nga xam ne donc moom mooy démocratie sénégalaise et malheureusement ils sont complètement passés à à côté donc pour terminer ñi ngi réitérer daal di wax ni euh, régime bi fi nekk na ni président Bougane Gueye Dany dañ ko libéré ci ni wala ca naa ndax nag place am du prison di réitérer encore di wax ni gëm sa bopp département Tivaouane lay jàmbaar takku na fas yéene faire face pour que président ñu libere ko sans condition et dans les plus brefs délais di waxaat aussi que ni gëm sa bopp département Tivaouane lay jàmbaar pare na autour de l'intercoalition jàmm ak njariñ pour qu'au soir du 17 novembre opposition am une majorité à l'Assemblée national lay woowu nga xam ne moom la ñuy teg di wax naan opposition warul jël euh, assemblée day bloqué gouvernement lay wa taxawul ndax moom ci boppam seen leader Ousmane ko yàgg nañ ko dégg mu ni képp ku la wax ne la opposition bu jëlee assemblée nationale day bloqué réew mi loolu du dëgg loolee nag danañ ko ko fàttali danañ ko fàttali sénégalais waaye fekk na ñun au niveau de gëm sa bopp lay jàmbaar ñu xam ni pour que ñu am véritablement équilibre des pouvoirs il faut que ñu am assemblée boo xam ne yeneen fas ñu koy dominer et à partir de ce moment là euh, député yi dinañ mën a surveiller euh, gouvernement bi dinañ mën a def ay proposition de loi parce que mun naa citer benn rek boo xam ne jàmbar la ci Sénégal muy euh, la criminalisation góor jigéen bi tey ji kan moo ko war a def muy assemblée nationale ñan ñoo fa war a ñan lañ fa soxla est-ce que député majorité bi lañ fa soxla parce que bu ñu leen soxla bu ñu kilifa yi góor jigéen yi gën a réew ci yi gën a réew ci àdduna bi ñoom ñoo leen dalal ci suñu institution yi gën a mag muy présidence muy université muy assemblée nationale. kon donc askan bi war nañoo xam ni ñii tey jii lay tax du no samp seeni ren fii ci Sénégal mooy que opposition bi am majorité à l' assemblée nationale. loi ne si bi nga xam ni mun nañu wax ni mooy firnde deal mooy firnde euh, waxtaanu biir suuf table bi am ci diggante régime bi fi génn ak ñoom ñi nga xam tey ñoo jël réew mi. ñu gëmm seeni bët ànd ci am amnistie bi ñoom dañuy ni ñu lëndëm rek mais bëgguñu dara leer te yàgg naa wax ni intimidation yi ñuy def yëpp dañuy tourner ñu lëndëm rek waaye ñoom xam nañ véritablement fi ñu waxtaane li ñu déggoo ba egsi fi tey kon nag li fi des mooy le peuple sénégalais ñu am seen fulla am seen fayda xam ni li ëllëgu Sénégal mooy intercoalition euh, jàmm njariñ euh, sàmm sa kàddu ak euh, takku wàllu Sénégal je crois que bu ñu leen voté au soir du 17 yàlla mën na def en tout cas ñoom Sénégal gi nga xam ne moom la ñu bëgg. dama jàpp ni le président de la république dafa dafa dafa maanaam dafa bàyyi sujet ba bu doon bu doon ci dissertation danaan dafa def hors sujet maanaam fi ko Sénégal doon xaar dékku fa parce que fi nga doon xaar mooy mu wax ci tartaru dund gi benn deuxièmement ci euh, violation yi nga xam ne moom lay def leen les libertés bi ñu ko posé question la wax du lu du lu aju ngooñ mën a jàpp lu mën a dóor euh, en tout du maa xale. parce que fi ñu ko doon xaar mooy moom après sept mois de gouvernance ñu xam le prix que le peuple sénégalais a payé quatre-vingt-six personnes tuées des milliards de pertes en économie fi ñu ko doon xaar tey jii mu rassurer sénégalais mais lu mu wax mooy ay euh, damay bàyyi justice def def kii mais moom il son ministère de la justice le procureur de la république mais moom ci moom la dépendre donc kon jàpp naa ni dañu warul egg ci sax fii tey beneen bi def mooy ci discours bi li nga xam ne moo gën a nekk gàcca mooy fi ñuy fi muy eh, jima layale naan ki ma fal dama ko fal parce que dama dige woon appel à candidature nekk lay waxam dafa woyof lool ndax benn jëmalu ko ci terrain bi nomination yi mu def yépp amu ci benn boo xam ne respecté na kon bu demee ba tey jii ay mbokkam ñi nga xam ne ñooy waa Pastef réeroo ci seen biir en commençant par le PM ci boppam ak ñi mu àndal ni ko nag nomination boobu nga xam ni danga nga def par décret da nga ko war a dindi moom tontu ba mën na tontu mooy moom constitution Sénégal da ko jox sañ-sañ ni ko yow tu nommes aux emplois civils et militaires kon loolu moo nekkoon tontu li et à partir de ce moment da doon clore débat bi ñu xam ni kon du parti Pastef moom moo war a influencer ab régime pour ñu mën a am jàmm ci Sénégal donc kon je dis tout simplement que président de la République sorteem boobu noonu mënoon na ñàkk. dafa ñëwoon rek parce que xam nañ ay njabootam réeroo nañu mu bëgg utiliser institution bi nga xam moom lay jiital pour dalal xelu Sénégal yi mais Sénégal fii bu fi xëccoo amee saaga am fi ñi ko fi def xam nañ ko ñoom dong la kon donc vraiment daal c'est très regrettable que moom mu génn Sénégal yëpp di ko déglu en tout cas mu wàcc aussi baax. le 30 incha allah dama jàpp ne danañ ko danañ ko bàyyi puisque euh, deful lu tax ñu jàpp ko ndax benn du moom dong moom moo doon day dem Mbàkke du moom dong moo xataraayu ndey jàll. te yoon may na ko nag parce que constitution sénégalaise ak loi les lois de la république ñoom ñoo consacré le le droit la liberté d'aller et de venir tey jii bu fekkoon dañu gis ni convoi président Diomaye day dugg mais kuñ ko waxul sax da ngay wàcc parce que président aussi du jaayil mais benn y avait pas de convoi boo xoolee communiqué euh, gendarmerie da ngay xam ni donc yaakaar ji ñu amoon en tout cas am y a une question qu'il faut se poser à ce niveau ndax ñoom communiqué boobu amuñoon pour génn parce que méngoowul ak li nga xam mooy la réalité sur le terrain beneen bi sax mooy le président là il est mooy ñoom président euh, Bougane ak coalition bi ñu àndaloon sàmm sa kàddu ñoom fa ñu jëmoon bokkul ak ak président de la fa ñu nekkoon. donc kon dañu jàpp ni tam xam na ni président Bougane ak ñi mu àndal danañ faire mal ci élection yi nañ wàññi seen doole nañ leen neutraliser ce qui est anormal parce que tey jii président Bougane waroon na nekk ci waajal élection yi mais ña ngi ko téye donc mun nañu wax ni bu doon tey kuy dox dañ naan mi ngi doxee benn côté parce que xam nañ engagement xam nañ patriotisme am xam nañ également li ko élection jaral ki nga xam ni moom même bu ñu la nee doo dem élection nga jël ses moyens def ko ci pour dem élection je crois que rawatina boo bokkee ci élection yooyu noonu donc kon daal li ñu mën a wax daal mooy gouvernement bi wàcce na wàcce na lool. tey nag euh, ñu ngi fi teewee en tant que euh, candidat tête de liste bu inter l' jàmm ak njariñ ak euh, sàmm sa kàddu ak euh, takku wàllu euh, ñëw nag tey soutenir vraiment sunu sunu frère yi nga xam ni tey jii euh, li waral seen teewaay fii mooy seen président bi nga xam ni mooy le président Bougane Gueye Dany bi nga xamante si ni tey ku ne gis na lin ko teg muy loo xam ni injustice la parce que juge Dakar dem ba tàmba ba Bakel du moins pour yóbbu ay ndimbal jox ko ñi nga xam ni soxla nañ ko muy ñi nga xam ni tey jii ndox ma sonal na leen ba munu mënuñoo dem fenn euh, ci noonu ci lan ko interpellé injustement euh, vraiment jàpp ko arrêté ko yóbbu ko prison bu Tamba muy loo xam ne nag lu doy waar la loo xam ni foogoon nañ ni euh, régime bi fi nekk nga xam ni ñoom dund nañ lu mel noonu parce que man mii di wax ak yéen das tase na ak le président de la république ci biir CAF bi Euh, moment bi ñu ko bi ko arrêté mu ñu toog fa waxtaan fa nga xam ni prison lu metti la kon donc tey euh, suñ ñëwee ba nga xamante si nii à l'approche des élections présidentielles euh, ñu bàyyi leen ñu am seen affaire dem campagne seen campagne jàpp naa ni lu mel noonu ñoom waruñu ko dund ba pare di ko tegaat keneen koo xam ni tey ñoo andoon di xeex loolu kon donc ñu ngi ñu sunu apporter soutien Euh, euh, au président Bougane Gueye dani ci vraiment li nga xam ni metti na tey le président de la république li mu wax ci discours am euh, apaisement la woote mënuñu dem ci apaisement wax dëgg yàlla ci moment boobu yaa ngi tëj koo xam ni candidat la war a dem battre campagne pour élection législative yi nga xamante si ni ku ci nekk war nga mën a taxawal sa gox ci moment boobu soo nee da ngay woote apaisement wala na discours yi rafet wax dëgg yàlla kon yoon la tey le président Bougane Gueye Dany ñu teggi ko loxo ci vraiment loxo yi ñu ko teg yóbbu ko ci prison boo xam ni conditions yi jaarul yoon conditions yi wax dëgg yàlla c'est inhumain donc euh, loolu appel boobu lañ koy lancer à ce que euh, euh, ñu bàyyi ko sans condition waaw ba nga xamante si nii tey vraiment dina ànd ak ñi mu war a àndal ñëpp campagne campagne bu bu apaisée élection yi jàll ci yoon que le meilleur gagne. le fait que euh, bi ànd nañ booloo beneen bi ci des man en tant que candidat euh, en tant que aussi député sortant euh, gis nan taxawaay bi nga xam ni def nañ ko ci département Tivaouane kon donc loolu ñoom fi mu toll nii bërti bërti ji yëpp dañoo tiit rek parce que xam nañ ni honorable Massata moom kuy jàkkaarloog moom fii Tivaouane di nga xoolaat li ngay def bu baax ba tax na. ñii suñuy suñuy suñuy suñuy camarade lan ñoom ñëpp taxaw nan wax dëgg yàlla pratiquement parce que ñoo bokk même gëm-gëm ñoo bokk même vision boo xam ni mooy sauver le Sénégal te it euh, ci loolu la ñuy la ñuy wéy di dox incha allah te gëm nañ ni moom euh, victoire bi moom moom pare na am nañ ko ba pare. xam nga Déthié bon loolu moom justifié na ko am na ci loo xam ni suñ ci bëggee nekk di wax sax dañuy cën ci attardé wu. mais ku ne gis na coow li ci doon am après ñu naan pur ci lay bokk moo leen di xamal ni leen pur du du xob bu oyof boo xam ni lu jóg faxas ko mu dem ñun dañu dañu ñëw ak suñuy nawle dugg ci benn coalition investir suñuy candidat kon donc dañ ciy dem jusqu'au bout te it incha allahu rabbi dinañ gagner élection yi dem assemblée nationale taxawu Sénégal taxawu askan wi ba nga xam ni lépp loo xam ni tey le régime en place ñu ngi koy mébét pour bëgg ko jàllale ñun ñu taxaw vraiment taxaw nekk ci côté sénégalais yi. message bi ma leen lancé rek mooy ñu xam ni élection yi du élection yi Ousmane Sonko du élection yi président Diomaye Faye élection yi élection gox-goxaat la élection yi départementale la élection yoo xam ni tey Tivaouane dañu war a tànn ku leen war a ci assemblée nationale. te foog naa ni ñun tànnoon na nu ñu am fa deux ans mais amul benn commune wala benn village booy. tudd ci Tivaouane te ñun yóbbuñu yóbbuwun doléance am ci assemblée nationale kon donc waa Tivaouane ñooy xool ba xam est-ce que dañuy taxaw xoo xaar benn nit mu ñëw naan leen kii laa leen joxoñ te ci moment boobu gis na ni ñu zappé commune Tivaouane mu nekk lu xam ni lu guléet la nga xam ni tey jii lu tol ni parti au pouvoir def ay investiture am zappé Tivaouane ci biir commune bi investirun fi kenn nii ci liste départementale yi nii ci liste nationale yi ci moment boobu nag ñun en tant que euh, député bi nga xamante si ni tey ci quatorzième législature bi lan nekkoon xeexal Tivaouane xeex bu metti avec engagement ak bëgg Tivaouane d'une manière générale wax dëgg yàlla ñun ñu investiraat ñu ci intercoalition boo xam ni tey jii li ci nekk ci parti politique kenn xamul nu mu toll kon dama jàpp ni Tivaouane ñoom am nañu seen choix ba pare man dama jàpp ni ñoom waa Pastef sax ñi nekk fii Tivaouane honorable Massata lan war a votel parce que démb ñoo ko tàgg ñoo ko taxawal nga Tiwaawan kon donc tey bu yàlla defee peut-être xëy na bokkuñu ci camp bu nu nekk ñoom nan cohérent ci lañ doon wax démb mooy benn la seen la seen président Ousmane Sonko waxoon nii opposition nan ko jox majorité assemblée nationale ñoom it nan fexe ba ki nga xam ni mooy seen doom muy honorable député Massata Samb ñu votel ko ñoom waa Pastef mu demaat assemblée nationale continuer taxawaay bi nga xam ne moom la doon am ci département Tivaouane jërëjëf